foo di reetaan nuyu baaneex day ànd ak foo ak yee sama gaay Zal Barigo la ah, nekk euh, benn rappeur bu nga xam ne mu ngi prôné pour la promotion de la Croix-Rouge sénégalaise jëkk fee nga xam ne mooy Karang euh, di nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal juste pour wax jeunes yi ku nekk sa réussite mu ngi say loxo bul xaar grand frère wala président et cetera donc na nga jóg nga ñafe gëm ne yow lu nga xam ne da nga ko war a am si yow la dépendre soit nga toog nga ñàkk ko wala nga jóg nga ñafe pour nga am ko big up yow saawaay jógal jógal sa ba muy teel gëmal sa bopp bu la kenn tayle gëmal sa bopp jobal sa bopp aha déedéet yaakaar si keneen aha déedéet moom talul de keneen moom defu nga ne la nekkoon jooba ko yóbbu fa mu ne jéemal yeeg yow en ah, fa mu ne yégal te bul soxla pou ne si yow te kenn du la poussé ñu imo duñ seen sa poussière yàlla bindu fi kii ñàkk nga ñaafi ñàkk ngir am koo baadolo amul du ñàkkum doole jógal jógal wane sa doole wane sa doole di nga musa moomee xaaral mat ba si jaay moo bi nekku si joolaa wala si lawbe su fi nga gëm J'ai commencé di bu may def euh, sama classe de sixième en 2013 mais boobu comédie la doon def ma le seul comédien hein, dans notre commune muy Karang. ma nekk fa gëm ko diko def diko def ba yalla def ma dugg dans la Croix-Rouge en 2015 ba ma duggee Croix-Rouge ñuy dem di dem di dem comme Croix-Rouge ku lan xam xam ne dañuy dimbal askan bi mais en même temps am lu nga xam ne xamee nañ leen ko moy fo kaf ak reetaan n'est-ce pas si biir loolu la fekk may assister ay camp et cetera ma dem ba am lu nga xam ne daf ma dugg muy woy bi ma ne pourquoi pas woy bi nga xam ne ñu ngi koy si yi ma jëm see jël seeni i phrase seen i mots raison pour laquelle ma jël voix boobu noonu génnee sama premier single le 27 décembre 2017. mu ngi tudd Croix Rouge tout court ah, ma jógee foofu noonu am na beneen bu nga xam ne génnee naa ko parce que dëgg la Croix moo tax ma woy mais am na beneen single bu nga xam ne génne naa ko hors croix rouge car étant jeune war nañ mën a sensibiliser aussi suñu moromi jeune à savoir waruñ mën a toog di xaar kenn pour mu ah jàppale ñu si lu nga xam ne mooy suñu réussite. yor nañ jeunesse bu nga xam ne dañoo attentif trop ñun toujours li ñuy wax mooy dañuy xaar nguur gi dañuy xaar nguur gi wala moom père est riche defaluma dara donc damay toog wala moom grand frère est riche defaluma dara damay toog non à travers notre propre engagement man loolu laa gëm man. day ànd ak foo ak reetaan. da moo ta ma choisir hip hop parce que gis naa ne peut-être euh, ku nekk ak sa style man gis naa ne peut-être style bu ma yore si hip hop laa ko mun a jaarale pour lancer yenn message yi. raison pour laquelle ma jël voix boobu noonu. milieu bu nekk mun naa ne hip hop bi jànguñ ko yàlla moo def ñu bëggu ko rek parce que nekk nañ fu nga xam ne dañoo isolé wu maa ngi dëkk ba frontière Kaarang am yu mel noonu dafa jafe raison pour laquelle suñu xam-xam màcc wu si noonu parce que jànguñ ko mais dañ koo bëgg classante day day neexal hip hop kii woy lii kee ñëw mu classe ko mais na rafet tey ma lay saaga xale yi ay xale di ko déglu exemple man may classe benn dip ma saaga ko tey benn xale bu nga xam ne daf may bëggee man mu déglu loolu noonu kooku ëllëg mu ñëw di répéter les moom man ma dégg ko ma xam ne kii man maa ko jàngal saaga raison pour laquelle dans la ñun dañuy jàngal maam bu ngay nekk xale muy aspirant colon bay doon responsable dañ lay jàngal ne xale waroo saaga sa moroom xale muy mag waroo sax saaga donc yaakaar naa ne man duñ ma yaree noonu ma ñëw màgg di classe nit di ko saaga donc de ce lu ma mën a wax mooy man gisuma loolu lu rafet man dama ne ah, di rab sax waxuma salir sax di rab di wax sa bopp di wax si sa bopp di di tàgg sa bopp dama jàpp ne loolu pour man des na quoi nañ bàyyi saaga bi nañ bàyyi yàqante bi ñu jéem a rab lu nga xam ne moo am njëriñ à savoir di lancer ay messages n'est-ce pas di di di créer lu nga xam ne si thématique si ay thèmes la ñuy wax gars yi xale yi mun di si inspiré wu di si jàng moo gën ñu nekk fi di def naka sudul noonu daal su ma sañoon daal ñu off loolu ñu passé à l'essentiel la day ànd ak foo ak soo xoolee ñun fu ñu dëkk toujours muy kaaram frontière dañoo am problème pour nga génnee singal sa il faut nga déplacé wu foog nga dem ba Kaolack wala nga dugg biir Gambie wala nga ñëw ba dakaar pour nga mën a génnee singal laa wax de benn single dangay paas nga dem et aussi ah, autorité yu nga xam ne ñu ngi foofu noonu newuñ jàppuñ ci mais des nañ see jàpp maanaam des nañ jàpp ci milieu bi donc war nañ ñoo mën a jàppale xam nga dimbale ñu tijjul ñu studio biir Kaarang ba nga xam ne ñun buñ buggee génne lu nga xam ne mooy singal enregistré suñuy son nañ ko enregistré foofu te du ñu sonn

bu nga ne dañ koy suivre partout parce que nit booy def dara yaakaar naa ne war nga ko war ngaa mën a gëm lu mel noonu maanaam am si lu nga xam ne dina raw waxuma la sa réew mais bitim réew ñu lay seetaan ngay dem di fa évoluer et cetera raison pour laquelle ñu am vision boobu noonu am nañu yaakaar ne fu nga xam ne foofu la ñoom dip teg seen tànk ñun war nañ koo mën a romb. génneeguma album nag mais ñu ngi si ay projet yu nga xam ne pour pour nekk ci boobu ah, samay single ñu ngi toll si huit single mun naa ne si biir huit single yooyu noonu sept single yëpp croix neuf single si biir si biir neuf single yooyu noonu sept single yëpp croix lañ ko jagleel. pour lancer population bi xamal leen lan mooy croix rouge raison pour laquelle ñu jël lu nga xam ne croix noonu lay doxee pàcc bu nekk ñu daal di si def single lu may wax mooy euh, nañu autorités yi jàppale mooy fu ñu dëkk fu ñu dëkkul parce que ñun ñëpp doomu réew mi la doomu réew mi lañ. donc buñ bu ñu réussir yaakaar naa ne pour réew mi la si biir loolu fu nga xam ne falaa dëkk muy Kaarang am na ñu nga xam ne ñu ngi siy jàpp lu mel ni suñu suñu maire bi wax dëgg fa yàlla mu ngi siy dugal loxom a ah, ku mel ni sama papa ji muy Ibrahima saane mu ngi siy dugal loxom bu baax a baax lu mel ni ay ñoom grand dani ndaw donc ñeen ñu nga xam ne ñu ngi fa te yàlla mun loon na leen ko ñun ñu ngi leen di ñaan ñu dugal ci seen loxo. may wax euh, jeunes rek ñu bàyyi yoonu suuf bu ñu jël maanaam géej gi. parce que gis nañ ne tout récemment ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan may profiter de l'occasion di rendre hommage suñu jeunes yu nga xam ne ñàkk nañ fa seen bakkan foofu si Kaarang leen di wax ne yàlla xaare leen arjana ah te su boobaa ñu sensibiliser jeunes yi rek ñu daal di toog fii te xam ne war nañ mën a réussir suñu biir dëkk.